asalaamaaleykum mbokk yi ah, ñu ngi leen di nuyu sant ñu la seen ah, doomu ndey Male Fofana ñoo ñëwaat di ñu ko baaxoo di def ànd ci ak ah, Jotna TV ci seen jotaay wi nga xam ne ñu ñu ko tuddee kàllaami penc mi kàllaami penc mi nekk ci biiru waxtaan bu ngeen xoolee jotaay bi weesu ñëwoon nañ ci cosaanu maas yi kàllaame wolof wala làkki wolof tey dañuy ñëw ci riiraale yi bu ngeen xoolee dañu ne woon. maas yi moom ni ñu koy sosee mooy rek euh, ngelaw li nekk sa dënn ngay génnee sa sa gémmiñ te boo koy génnee euh, sa nga sa gémmiñ ñu ngi koy tijjee euh, sa làmmiñ ñu ngi koy def sa tuñ ak sa bakkan ci ci ci noonu ngay gindee gindee ngelaw li ngir ngir mën a sos ay maas yu mel ni ay a o i u ak e ak yu mel ni ñoom jotoon nañoo jotoon nañ ko laytaay rek tënk ko tënk bu gaaw te jii incha allah dañuy ñëw rek ci li ñuy woowee euh, rurale yi rurale yi mooy les consonnes consonnes yi maanaam lu mel ni të pë në më euh, bu ñuy wax bu wax ay rurale la ko wutale ak maas yi mooy gindi bi ngay gindi ngelaw liy gën a sa dënn gindi bi nga koy gindi mooy gën a dëgër mooy gën a tar maanaam day mel ni nga bëgg a wax nga bëgg a wax boo bëggee wax ngelaw li bu demee bay génn sa say tuñ dang nga koy tànc ba nga xam ne ngelaw li du génn soo paree nga bàyyi ci ngay amee p ci ngay amee lu mel ni b ci ngay amee lu mel ni k wala q yooyu yëpp gis nga ne ngelaw li dañ koo tëj dañ koo tànc soo ko bàyyi am na tam weneen xeetu gindi ngelaw woo xam ne ah, gaa doo doo tànc ngelaw li ba du génn da koy bàyyi benn da nga koy ndool boo xam ne mën na si jaar day mel ni nga ne f wala z wala s boo xoolee loolu mën nañ koo xëcc muy dem ndaxte rek ngelaw li tànkuloo ko ba mu sës da nga ko bàyyil prox ndool ci bëñ yi wala ci gémmiñ gi mu fay génn boobu mooy ñaareelu xeetu gindi bi ñuy gindi ngelaw li bu ñuy sos ah, riiraale yi am na tam foo xam ne danga nga ciy boole sa sa put da nga ciy boole sa put sa dafay riir ànd ak moom loolu mooy wutale p ak b ki naan papa wala ki naan bunt bi p ak b p boo koy xool ah, booy booy wax p sa sa sa bokk waaye booy wax b sa da ciy bokk loolu moo wutale s ak z nit ki boo boo tegee sa sa loxo sa put di gis ne amul dara luy luy riir sa put waaye boo bu fekkee ne da ngay def boo tegee sa loxo sa put di nga gis ne sa put dafay riir kon loolu tam euh, put gin ci boole muy riir loolu tam dina indi dina euh, may ay ay kàllaama yu mel ni wolof ak ak yeneen ñu ñu mën a sos yeneen xeetu riiraale euh, am na tam beneen xeetu jumtukaay woo xam ne wolof da koy jëfandikoo mooy di bakkanal riral yi bakkanal bakkanal mooy fi booy sos euh, xaraf bi ngelaw day génnaale ci sa bakkan euh, maanaam su ma waxee bay ak mbay ñu ne kii mi ngi bay tool bi walla ñu ne mbay mi am na barke xam nga bë ak mbë dë ak ndë maanaam euh, jaay ak njaay su ma bëggee sos riral yooyu faw rek ngelaw génn sama bakkan bu ngelaw gënul sama bakkan du mën a sotti kon loolu gis nañ ni yooyu yëpp ay ay ay xeetu jumtukaay la yoo xam ne yàlla def na ci nit ci gémmiñam mën na koo jëfandiku ngir mën a rek ngir mën a sos ay xaraf yu bari ngir rek mën ko jëfandikoo ci kàllaam tubaab boo ne ko njaay danaan en njaay parce que moom ci kàllaamam amul amul nu nu muy boolee euh, riiraale ak bakkan kon ngeen gis ne kaalaama gu nekk rek am na foo xam ne foofu la mëne am na foofu foo xam ne tam dafaa néew doole léegi ñu ñëw ci ay ay ay misaal ñëw ci ay misaal won leen dañu jël yenn màndarga rek la ñu jël lépp ci ay misaal yoo xam ne ci ci wolof ci ni muy sose ay ay riralem wolof daf ko am te mu nekk ay ay mandargay wolof wolof am na ca ci nag moom moo nekk ci par exemple moo nekk ci ceeb moo nekk ci caam wolof euh, tubaab amul ca arab tam amu ko waaye anglais euh, am na ko ca ca booy xool dañuy da ngay boole fat ngelaw li ak bàyyit ngelaw li porox ndool gis nga të ngay jiital të boo nee të da nga fat boo nee che da nga bàyyi ñaar yooyu ngay boole wolof itam am na euh, baatu riiraale bi ñuy woowee jë ñëwee kam jaam jaam wala walla jiim wala wala jë wala jooy wolof am na ko loolu tubaab amu ko lu dul mujjal dë boole ko ak i waaye anglais boo fa demee dina ko am portugais ak espagnol itam di nga fa gis donc kon loolu beneen mandarga la boo xam ne dafa nekk ci wolof wolof am na tam euh, wenn euh, riiraale boo xam ne dañ ko dañ ko bakkanal bu bu ñuy woowee ña ñë boobu moom boo demee ci tubaab di nga ko fekk ñë boo demee ci tubaab di nga ko fekk am na beneen boo xam ne euh, wolof am na ko mooy ñë ñë moo moo gën a sori ci ci ci gémmiñ gi ci gannaaw la nekk ñë ñë boobu tubaab amu ko waaye anglais am na ko mooy li ngay woowe maanaam euh, king wala parking wolof moom am na ko maanaam nga naan ŋaam wala ñiiño loolu ñë la nga xam ne wolof da ko am wala tam am na tam lu ñuy woowee xë ak daanaka benn la waaye q moo gën a sori te que boo koy def sa sa sa sa put du du du euh, riir q boo koy def sa put day riir dinañ ko fekk ci kalaama arab loolu mooy mooy wutale nit ñi bu ñuy jàng alxuraan ñu naan kuul ak xuul yooyu nag bokkul ndax boo ne kuul mooy lekkal boo ne xuul mooy waxal boo defee Euh, ñu góorgóorlu ci ci yooyu moom mën na ci am euh, njëriñ lu am am solo buñ jógee ci ci x euh, ñu ñëw ci lu ñu woowee x x moom boo ko xoolee x sa da ngay xaw a mel ni lu xaw a tànc sa sa put boo ko xawee tànc da ngay bàyyi ngelaw da nga ciy bàyyi tuuti porox ndool ngelaw li di génn loolu na naan x gis nañ ko dinañ koy fekk ci arab dinañ koy fekk ci itam ci espagnol ci portugais waaye anglais amu ko français tam amu ko am na tam yoo xam ne wolof amu ko wolof am na ko yu mel ni v moo tax euh, boo wolof ko xam ne euh, euh, yàggul ci tubaab boo ne ko boo boo ne ko vu danaan wi donc wolof tam amul u boo defee donc v bi mu xool ban ban riiraale moo ko gën a jege ci wolof muy wë nga ne v mu ne wë u tam u tam néew na ay kalam yu ko am wala déew na kàlla bi ko am wala amul amul u boo ko joxee u da lay jël bi gën a jege u muy u mu boole ko bu ko defee nit ki danaan du wax fukki vu danaan fukki wii donc yooyu yëpp am na te li ma waxoon rek moom mooy ñëwaat ne kàllaama loolu loo xam ne dañ koy seetlu bu dee sa kàllaama amu ko mën naa jafe nga nga nga mën koo nga mën koo def loolu xam naa dinañ ñëw ci benn jotaay gën ko leeral yooyu nu muy dem wala fi tam amul wolof boo waxee je se la lay wax boo ko waxee itam je itam je la wax wala mu wax la se beneen bi nga xam ne tam mën nañ ko tudd ci ci wolof mooy mooy wolof amul h amul h anglais itam benn la ci am waaye boo xoolee kalaamal arab moom ñett la ci am kalaamal arab am na h bi nga xam ne day génn sa sa dënn sa sa sa sa put di riir am na tam h day da ngay xoj sa put waaye sa waaye put bi du riir maanaam waaye itam am naa ah dangay xoj sa put waaye itam euh, daf dafay da nga koy booleeg riir donc muy h ak haa ah. donc yooyu yëpp arab am na ko waaye wolof amu ko nga gis ne kàllaama ku ci nekk dafa am yoo xam ne ko am am yu am yu mu amul bu ñuy wéy ci loolu ba léegi wolof am na lu ñuy woowee euh, loo xam ne ñu ñu koy woowee shidda shidda mooy dangay ngay dëgg sa tànk ci ci ci benn riiraale day mel na ñu ne xaal xaal bu ñuy lekk ñu ne xal bi nga xam ne dafay lakke ñu ne wala ñu ne xàll na yoon wi xàll xàll na xam nga fii ci lë bi dañ dañ cee def li dañ cee dëgg tànk mu gën a tar nga gis ne wolof kon foofu rek euh, mën na ci sos ñetti baat ngay mel ni ñu ne taqale maanaam na ngay boole ak taqale xë bi dama fa dama fa dama ko gën a dëgg moo moo tax nga ma am ci ñaari baat taqale mooy te boo xoolee ñaari baat dañoo wuute taqale mooy boole tàqale mooy mooy mooy mooy dañoo wute yooyu yëpp am na te nekkul ci wolof kese euh, kàllaama bu ko dem yooyu dina am baat yu niru boo ba ñëwee rek ci arab buñ naan euh, buñ naan euh, tali bi autoroute bi ñu naan ko ila Touba boo ne ila Touba mooy day jëm Touba boo ne Touba mooy dafay jëm fépp ba mu des Touba loolu moo nekkoon li nga xam ne bëggoon nañ koo andi ci cosaanu riiraale làkki wolof xam naa buñ ci buñ ci jógee incha allah beneen yoon bi dina ñëw ci euh, ci ci li ñu woowee cosaanu baati wolof maanaam ma maas yi ak riyaale yi boo leen boolee ngay ngay am lu ñuy woowee baat bu ko defee bu ñëwee rek euh, dégg nga ànd ci suñu kéemtalaay xam-xam te niñ koy waxee rek yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu ku ci am loo xam ne ba nga ko cee yokk wala ba nga ko cee jubbanti rek euh, boo ñu ko baaxee dinañ la bu baax asalaamaaleykum